nga de alhamdulilah waaye dañoo woon ginnaaw yéefare jël seen fett ak seen bal ya di ko dóor ci kanamu seen mbokki jullit yi foofu nag la rolu tasawuful islaam yi daal di ñëw bu dëggu mu war ak mu ci ñi nga xam ne dañ ne gëm nañu tasawuf bu ñu jàpp ne bu ñu doon ay nitti laa mu jàpp ne kër gii laa fekk sëriñ bii laa gëm maa ngi ci réew sàngam lay xew ci rew sàngam ci sama mbokk julit ya suñu waxe nga ne ah mar yi nangam nangam gëmu ñu dara mo waral bi Muhammad ñu nal na yow sa yoon neeku ci ya nga def musiba sa ñaan sax suñu borom xebu ko noonu lislaam yi li ñu njëkk yitte wo moy takale kàddu julit yi ñu baña nekk ben di tàbbi ci ay mahawir yu bari ni wor bu njëkk bi moy bu uru sira muy lan wujubul mutalaba bil ihtikam ila al qanun qaanuuni dawli fi bu'r ëru siraa fi al alam التي يضطهد فيها المسلمون وتسفك فيها دماؤهم وتنتك حقوقهم والمطالبة بالعدل وعدم التحيز إلى الجنس أو الدين أو غير ذلك من عوامل التميز تميز الظالمة تلول موي بوزيسيون بو الاسلام رواتنا سن ماك نيغا خامني نيوم لا نيو توب سين تاريخي ني وارا وو ادنا بيب ني نانغو اتي وو سي لوا بو خامني بي ادنا بي ييب xeet wu nekk dañ nga caa joxe sa xalaat joxe ca sa gis-gis joxe ca la nga gëm wala sa diine ba ñëpp bokk d'accord suñ bëggee àdduna bi nekk ci jàmm mënuñu lool ñu ne diine sàngam nañ joxe seen système àdduna bépp appelé ko ñu àtt ci àdduna bi seet ba xam bu déwén jotee ñu jël beneen système seet ba xam finalement ñu seet bi ci ban moo nekk meilleur ñu àttewu ci buñ jaaree ci lislaam bu ñu dellu see dootuñ ci génnaat mukk waaye malheureusement nangoo atte woo ci atte yoo xam ne àdduna bépp dañ koy gëm kon lii xew ñu koy def deretu jullit yi ña koy def faaw ñu am la lu ñu leen topp président Amérique bi warutoon na wàcc rek fi ñu toll dem tëdd këram nelaw yoon waroon na koo topp moom yóbbu ko àtte jub waaye fu nit di jaar ba def loolu xotti àqi jullit yi ñu war a woote cig maandu bañ a tafu ci wenn xeet wala jenn diine ngir xañ kenn xàqam lislaam moom bu fekkee li ñuy wax yaatu dënd ku ñëw ci moom ci ngay tàmbale ci ci ngay yem laa ikraa fi diini xat tabayyana ruslu min al ghayy diine joo xam ne amul forcé ba àgg sax ci ñu wax sa yonant ne ko yéefar bi gëmul sax bu ñëwee tafu ci yow ubbil ko sa kër di ko dundal nekk ak moom ci jàmm mu déglu sa diine ba analyser ko bu ko neexee dugg bu ko neexul bàyyi ko mu dem fa mu jóge woon ci jàmm ma su ma ablixu ma amanahu nan koy yóbbu ba mu àgg fa muy amee sécurité mais waru ñaareel bi li ñuy tudde amaakinul muqataa laa budda an yunaadi suufi bi waqfil muqataati zalima وإبدال قراراتها التي تدفع ثمنها ظلما الشعوب المسلمة السابرة المجاهدة مثل فلسطين مثل الصومالي إلى آخره إلى آخره دغو بيغا خامني نين كوي دغو اك كو خامني كي نوني يالله جوبلو فيني جوبلو ني دغلا تغلا بلوكيس gone yee dee jigéen ñi dee seen yoon lu mel ne li fi Amérique defoon Irak lu jiitu ñuy at ñuy daaneel nguurug Saddam Hussein lu mel ni lii xew ñu def Somalie lu mel ni lii ñu def Palestine li ci gën a kiimaane sax ñooñu sësaloog seen mbokki jullit ñu tëj seeni frontière ne duñ ko ubbi ndax dañuy bañ Nations Unies condamné leen wéruwul ci loi bu normal wéru ci wéruwul ci xel mu set ni waru ñettel bi al mujtama'at al muslima khiyam sufi bi al al mujtama'at muslima nahwa al qiyam al raqiya wa ihya al mafahim al sufiya al aliya lolu bu yagul bi rek président libi bi mo demal bopam ba gis ko Gaddafi ño jek jek borom xam-xam yi nek ci réew ma yépp waxtaan ak moom ñu d'accord di créer di woote ay congrès islamique foog naa am na ay bouquin ak ay téere yu mag yoo xam ne gis ngeen ci photo yi kilifa yu mag ci réew mi maa ngi ceeg boo xam ne fu euh, way kilifa gi toog Cheikh Mourtada Mbacke ma nga ca bokk lu ñu def dañoo jekki-jekki gis ne gone yi ñu ci école ñu di leen jàngal di leen yar waaye bis nekk ndëng te ki gën a yokk yàqute ki gën a yokk ñu mos tuuti ci tasawuf gis ne tasawuf